عليك ndox teew na tiim dafay toj tiim dafay toj te ñun tiim lañu ci lii te ñun tiim la tiim lañu ci fii tiim lañu ci fii suñ sang yaa ngi nii toog suñ sang yaa ngi nii toog ñu ngi tàggoo di ñaan ndigal ñu ngi tàggoo di ñaan ndigal ñu sànni ci ay kàddu tey déglu seen ndigal ngir sànni ci ay kàddu tey déglu seen ndigal waaw ah, léegi sëriñ Moodu mi nee na sëriñ Moodu mii mbokk la mbokk la xarit la xarit la am di jàmm la am di jàmm la bi ñu dalee ànd man li ma xam ci moom ak léegi ne biñ dalee ànd ñoom ñaar moom li mu xam ci moom ba léegi lu mu néew néew lu mu néew néew jege na juróom fukki at jege na juróom fukki at soixante onze ñu ngi ànd soixante ñu ngi ànd ñu ngi bokk di jàng daara ñu ngi bokk di jàng daara ñoom ñaar di jàng ci daaray bay Amadou Thiam di jàngee ci daaray Baye Amadou Thiam buñ fa jógee jàngee nañu ci daaraay Baye Moustapha Diouf buñ fa jogee jàngee nañ ci daara yi Baye Diouf. ñoo bokk daan jàng. ñoo bokk daan jàng. Eh, ris er, eh, eh, muqaddim hariri. maqaamatul hariri. maqaamatul hariri. Baye Moustapha Diouf moo nu ko jàngal. Baye Moustapha Diouf moo leen ko jàngal. durey du fa lañ ko jàngee. durey du fa lañ ko jàngee. sëriñ bi jàng na ci mbokkam. mën nga mën nga seede ci moom. Ah, kon ah, sëriñ bi jullit la. ñu leen di seedeel ne sëriñ bi jullit la. ku daan jaamu yàlla la. ku daan jaamu yàlla la. ku daan dundale la. ku daan dundale la. ku daan liggéey la. ku daan liggéey la. ku daan dundee aw ñaxam la. ku daan dundee aw ñaxam jamono bu nit ñëwee. na jamono bu nit ñëwee. seeti ko ca këram. seeti ko ca këram. boo dugg rek gis ko. boo duggee rek gis ko. mu nekk koo xam ne. mu nekk koo xam ne. daf daan rafetal kàndaale. daf daan rafetal kàndaale. diggante moom ak taalibe yi. diggante moom ak taalibe yi. diggante moom ak mbokk yi. diggante moom ak mbokk yi. diggante moom ak mbooloom jaamu yàlla yi. diggante moom ak mboolem jaamu yàlla yi. dox di ñëw fii di wasifa ji. da doon dox di ñëw fii di wasifa ji. di def hadara. di def hadara. di def lépp. di def lépp. lii lañ xam ci moom ci gàttal. lii lañ xam ci moom ci gàttal. ndax waxtu wi yaatuwut. ndax waxtu wi yaatuwut. te kilifa yaa ngi bëgg a wax. te kilifa yaa ngi bëgg a wax. te li ma waxoon. te li mu waxoon. su tiim eh, su njàpp su ndox teewee rek tiim fay daal di toj. su njàpp ñun tiim lañ ci lii. su ndax teewee rek tiim fay daal di toj. ñoom tiim lañ ci lii wasalaamaaleykum wa rahmatulah. macha allah. mbokk yi. Cheikh Tidiane Niass ne asalaamualeykum. ñu teewlu Cheikh Cissé. ñu teewlu rakki Baye di Cheikh Tidiane Niass. ne ñu ngi jég mu ngi jégalu ci kàddu yi mu fas yéene yëkkati ci kanami sëriñ si. ñàkk nañ mag baax. ne ñàkk nañ mag ju baax. ñàkk nañ sëriñ bu baax. ne ñàkk nañ sëriñ bu baax. baay ju baax. ne ñàkk nañ baay ju baax. baay seexu jógee ba léegi. bi fi baay seexu jógee ba léegi. ne ba mu jóge booba ñoom ay tuut tànk lañ. moo jël ñëpp uuf leen. moo jël ñëpp uuf leen. jàngal leen. jàngal njaboot gi. moo leen jox wirdo. moo leen jox moo leen tarbiya. moo leen di jox lijaasa kooku noonu jëmm jooju nag daf ñuy iroon daf leen a iroon kenn xamul dara kenn xamalu ñu dara kenn xamalu leen dara moo doonoon lépp ndax moo doonoon seen lépp nit ku bëgg bàyyi la nag ne nit ku bëgg bàyyi la nag radiyallahu anhu boo ko bëggee nax nax ko ci bàyyi boo ko bëggaana nax nax ko ci bàyyi doo ko naxee ci bàyyi rek am na soo ko naxee ci baay rek am ci moom li nga bëgg yal na ko yàlla xare aljana yaa rabbi yal na ko yàlla may mbaax yàlla bu mu fekk fitna ci kanamam yàlla bu mu ba na ci gannaawam loolu yëpp nag teg nañ ko ci loxo mun amina mu yore suñu kàddu nag teg nañ ko ci loxo sëñ mun amina mu bàyyi ñoo moo xamee kàddu famille bi mbokk yi sëñ mun a mi naa ne asalaamaaleykum ne ñu ngi wax ne fii du seen waxikaay olof yi nag dañuy wax ne du sama waxukaay ba pare wax lu bëri olof yi nag dañuy faral di wax ne fii du sama waxukaay ba pare wax lu bëri waaye tey ne loolu du ko def ne dafay fàttali rek ne su fekkee ne sëriñ Aliou mi gën a xam baay ñëpp mi gën a xam mooy seede baay mooy seede baay wax ne sëriñ bi jullit la woon wax ne sëriñ bi jullit la woon wasalaam wasalaam kon buñ ne Serigne Modou taalibe Baye la woon wasalaam. kon buñ ne sëriñ Modou taalibe Baye la woon wasalaam. jërëjëf. même jàllal. ñu ngi nuyu mbooloo mi. yi Cheikh Ibrahima ne mu ngi leen di nuyu. di nuyu Serigne si fi toog. di nuyu Serigne si fi toog. di ci jiital sëriñ maa yi. di ci teg al imaamul akbar. di ci teg imaamul akbar. ne Ndiaye Modou mii dem. ne Ndiaye Modou mii dem. jullit la woon. jullit la woon. taalibe bàyyi la woon. taalibe bàyyi la woon. taalibe Cheikh Ahmed Tidiane la woon. taalibe Cheikh Ahmed Tidiane la woon. lépp loo xamante ne ñooñu jokkoon nañ ko. lépp loo xamante ne lii ñooñu jokkoo woon nañ ko. ba ñu ñëwee jokk na ko. bi mu ñëwee jokk na ko. boolu ci nag xeeb boppam. boole ci nag xeeb boppam. suufeel boppam. suufeel boppam. ba kenn du ko ràññee. ba kenn du ko ràññee. jaamu yàlla dëgg la. jaamu yàlla dëgg la. ku baaxoon ci mbokk gi la. ku baaxoon ci mbokku gila la. ku baaxoon ci lislaam bi la. ku baaxoon ci lislaam gi la. baaxoon ci. Eh, diine jële ci tariqa bi la. ku baaxoon ci diine jële ci tariqa bi bëgg bàyyi nag moom. bëgg bàyyi nag moom. daf cee dem ba jeex. daf cee dem ba jeex. ba ba ba far réer sax ba kenn mënu koo xàmmee. ba far réer sax ba kenn mënu koo xàmmee. moo tax moo tax. li ma ciy seede tuuti rek la. li mu ciy seede tuuti rek la. barki démb. ne barki démb. dafa toog ak ñun kër imaam. dafa toogoon ak ñoom kër imaam. di takk sëy. di takk sëy. bañ pare bañ paree. daanaka lam fa wax mooy daf ñoo tàggu rek. daanaka lam fa wax mooy daf leen a tàggu rek. indi na histoire am. ndax indi na histoire am. fa mu dalee ba fi yem. fa mu dalee ba fi mu boppam. jébbale boppam. yeesal kóllëreem. yeesal kóllëreem. bon nag. bon nag. li mën a am. li mën a am. seen taalibe ngoog. seen taalibe ngoog. seen mbokk ngoog. seen mbokk ngoog. bàyyi rek la bëggoon. bàyyi rek la bëggoon. amutoon kenn ku may bàyyi. amutoon kenn ku may bàyyi. wasalaam wasalaam. Cheikh imam na alhamdulillah sant yàlla. na ñu ngi sant yàlla. di gërëm ay àtteem di nangu ay dogalam. di ay àtteem di nangu ay dogalam. di wax inna lillahi wa inna ilayhi lay di ñaan yàlla mu yool ñu ci musiba mi. di ñaan yàlla mu yool ñu ci musiba mi. utalal lu gën li ñàkk. te utalal ñu lu gën li ñu ñàkk. ne jaami yàlla bu baax a ngi ni tëdd. cheikh mun xam naa wax ne taalibe bàyyi la loolu rek doy na ko seede. li cheikh mun xam naa wax ne taalibe bàyyi la loolu rek doy na ko seede. mooy ne tiijaan bu wër la jullit bu wër la. mooy ne tiijaan bu wër la jullit bu wër la. mu baax la itam. mbokk mu baax la itam. jokkukati mbokk la. jokkukati mbokk la. ñii mbokkam ci deret daf leen doon jokk waxtu wu nekk. ñii mbokkam ci deret daf leen doon jokk waxtu wu nekk. mbokkam itam ci diine daf leen doon jokk waxtu wu nekk. ñii mbokkam itam ci diine daf leen doon jokk waxtu wu nekk. guddeem ak bëccëgam yépp. guddeem ak bëccëgam yépp. liggéeyal yàlla. liggéeyal yàlla. ci la ko jeexal. ci la ko jeexal. nekk nit ku am njëriñ itam ci mbindeef yi. nekk it di nit ku am njëriñ ci mbindeef yi. ba pare nëbbu boppam. ba doo xam sax loolu ci moom. ba doo xam loolu sax ci moom. baax la ñuy ku baax lañuy tàggool nii waaye ñu koy yaakaaral ne ñu ngi koy yaakaaral ne na fekk ci mbaax yàlla gi lu ëpp yal na fekk ci mbaax ak yàlla gi lu ëpp mbaaxam moom mbaaxam moom demee yal na ko yàlla wanaleeg Mawlana laa Ibrahim su demee yal na ko yàlla wanaleeg Mawlana Cheikh Ibrahim Niass radiallahu anhu am nañ yaakaar gu dëgër ne moom lay dëkkat am nañ yaakaar gu dëgër ne moom lay dëkkat loolu yonent bi moo ko digee loolu yonent bi moo ko digee sallallahu alayhi wa sallam ko wax moo ko waxit ne nit moo kam bëgg ñooy dëkk ne nit moo kam bëgg ñooy dëkk bàyyi nag ku dëkk moom rek sa yoon leer na bàyyi nag ku dëkk moom rek sa yoon leer na asalaamaaleykum wa rahmatullah imaamul akbar ñi teewlu Cheikh Mamadul Mahi Cheikh Ibrahima Niass mbokk sëriñ bi ne alhamdulilah asalaamualeykum ne ñu ngi jaale suñ bopp di jaale mbokk yëpp ci jëmm ji nga xam ne ñu ngi tàggoog moom tey muy jëmm joo xam ne lépp luñ mën a wax ci moom lépp luñ mën a wax ci moom moom kawe na loolu ndax jëmm la joo xam ne yàlla la bëgg yàlla la bëgg ci kaw xam ko diine la bëgg diine la bëgg ci kaw xam diine ci nit ñu baax ñi la bëgg nit baax ñi la bëgg ci kaw xam lim bëgg ci kaw xam lim bëgg lépp loo xam ne ci kaw xam-xam la tabaxu rek lu wér loo xam ne ci kaw xam la tabaxu rek lu wér la bëgg na yàlla bëgg na yàlla jeexal na ay jikkoom yépp comme Cheikh Omar Cheikh Alaaji Abdoulaye jeexal na ay jikkoom yépp comme Cheikh Omar Seydi El Hadj Abdoulaye jeexal na kattanam yépp jeexal na kattanam yépp ni doom aadama di bëri ay pexe. ni doomu adama di bëri ay pexe. jeexal na ay bëgg-bëggam yépp. jeexal na ay bëgg-bëggam yépp. doomu aadama yu bëri. doomu aadama ay bëgg yu bëri. yooyu yépp na ko ci yàlla. yooyu moom jeexal na ko ci yàlla. yàlla fayee ñëpp àttan nañ ko. nit ñëpp àttan nañ ko. jigéen ñi àttan nañ ko. góor ñi àttan nañ ko. xale yi àttan nañ ko. mag ñi àttan nañ ko. ndax lan. jaay na ay jikkoom. jaay na yàlla ay jikkoom. jaay na yàlla ay ko ay jikkoom moom yàlla. li mbokkam yi wax yépp ci moom. daan dundale la. daan dundale la. ku ne xam na ne xalifa yàllaa ko moom. xam ko moom. te liggéeyoo. amoo alal. te dundale nga ba ñëpp xam ko. te dundale nga ba ñëpp xam ko. loolu ku ne xam na ne. yàlla wax na ne nekkal ma nekkal yàlla man kaana lillahi kaana allahu lahu ku ma nekkal man yàlla ma nekkal la. moom yàlla nekkal na ko. dindi jikkoom yëpp comme doomu aadama. dindi jikkoom yëpp. dindi jikkoom comme doomu aadama. comme doomu dafa jikko yi nga xam ne. dafa jikko yi nga xam ne. moom lay yonent bi sallallahu alayhi wa wax ne. jikko leen jikko yàlla yi. jikko leen jikko yàlla yi. kii ñuy tàggoo tey. kii ñuy tàggoo tey. baayam moo mujj nekk xalifa alaaji abdoulaye radiallahu anhu li nekkoon ci alaaji abdoulaye yépp tee teersi na ci baayam moom mooy taawi baayam sa taaw li nga ko mën a jox yépp di ko ko jox ko mën a jox yépp di nga ko ko jox jox na ko loo xam ne mooy alaaji abdoulaye ci boppam alaaji abdoulaye mooy kan mooy inna salaati wa nusuki wa mahyaaya wa mamaatiya lillahi rabbil lahu wa bi daalika umirtu wa ana awwalul muslimiin kooku mooy alaaji abdoulaye ne kooku dundam sama deeyam ay jaamoom yépp ci dara lu dul jébbalul yàlla. jéggalu yàlla. jébbalul yàlla. jébbalum yàlla. ngir jébbal boppam yàlla. loolu ci la kii nekkoon. jébbal na boppam yàlla. jébbal na boppam yàlla. ba gisut ci àddina yépp. ba ci àddina yépp. gisut ci àddina yépp. lu ko jaral yëkkati bëtam. lu dul ñi nga xam ne. jàppante na ak ñoom ci yàlla. na ñoom ci yàlla. ñu doy ko ci ñu doy ko ko ñu sëkk ci yàlla. mu jébbalu foofu itam. foofu itam. lislaam mooy lan. lislaam mooy lan. mooy jébbalu naa rek. mooy jébbalu naa rek. jébbalu naa neexal yàlla. kon kii jébbalu na yàlla. kon na yàlla. ci kaw xam. ci kaw xam. boo jébbaloo te xamoo. boo jébbaloo te xamoo. sa jébbalu daf lay lor rek. sa jébbalu yow daf lay lor rek. waaye boo jébbaloo ci kaw xam-xam. waaye boo jébbaloo ci kaw xam-xam. ci kaw dégg. boo jébbaloo ci kaw dégg. doo gis ci àddina dara. doo gis ci àddina dara. lu dul loo xam ne rek dañ koy bëgg. loo xam ne rek dañ koy moo tax ñëpp bëgg. moo tax ñëpp la bëgg. ñëpp la def ay mbokk. ñëpp la def ay xarit. ñëpp la def ay xarit. ñëpp la nekkal. la nekkal. ay ñaanam. ay ñaanam. ñëpp ci bokk yem ndax ñëpp lay ñaanal. ñëpp a ci bokk yem ñëpp lay ñaanal. ku am kóllëre la. ku am ndax boo nekkee ak yàlla. ndax boo yàlla. yàlla moo lay wax ne. yàlla moo lay wax ne. mottali leen seeni kóllëre. mottali leen ko boole woon nag. Cheikh Ibrahim. kii li ko boole woon ak Cheikh Ibrahim radiyallahu anhu. boole koog Alaaji Abdoulaye. boole koog Alaaji Abdoulaye radiyallahu anhu. boole koog mii ak mun naa boole koog moom mii ak mun naa mii. moom moo ñu koy gën a sax ci ñoom. moo leen ko gën a fett fàttaliku sax ci ñoom. moo ko gën leen ko gën a dundee sax. ndax lan. jébbalu na yàlla. yàlla. jébbalul na yàlla. jébbalul na yàlla. fu yàlla la fay nekkal. fu nekk rek yàllaa la fay nekkal. ci hadis bi ñu wax léegi. ci hadis bi ñu wax léegi. boo bëggee yàlla yàlla bëgg la. boo bëggee yàlla yàlla bëgg la. boo nekkalee yàlla yàlla nekkal la. boo nekkalee yàlla yàlla nekkal la. ak kattanam ak dooleem ak mënam yëpp. ak kattanam ak dooleem ak mënam yëpp. loolu boo ko naree dund ci àddina. loolu boo ko naree dund ci àddina. doo mën dundee ludut. doo mën a dundee ludut. inna salaati wa nusuki wa mahyaaya lillahi rabbil alamin yàlla rek. yàlla rek ngay mën a dundee. yàlla rek nga fiy nekkal. yàlla rek nga fiy nekkal. la nit ñi di nangu ci yow. yàlla la nit ñi di nangu ci yow. su fekkoon ne dañuy nangoo dañuy nangoo leneen lu dul su fekkoon ne dañuy nangoo leneen lu doxut loolu. kon duñ ko nangul dara. kon duñ ko nangul dara. feeñalut dara. feeñalut dara. ootewut dara. solut ay yére yu rëy. solut ay yére yu rëy. nekkut di wanewu. nekkut di wanewu. lépp mu ko nëbb. lépp mu ko nëbb. waaye terewul la muy nëbb yëpp. waaye terewul la muy nëbb yëpp. nam mel moom. nam moom. yàlla nga koy def ci xoli jaamam yi. yàlla nga koy def ci xoli jaamam yi rek. moo tax xol yëpp. ñi daje fii ñëpp tey. daje fii ñëpp tey. ak ñi fi dajewut. ak ñi fi dajewut. ñoom ñëpp nangul nañu ne. ñoom ñëpp nangul nañu ne. nit ku nit ku ko jara ngi nii. nit ku ko mata ngi nii. nit ku ko attana ngi nii. nit ku ko attana ngi nii. nit ku oyofa ngi ngi nii. buy wax ak yow sax. buy wax yow sax. il faut nga laajaat ko. il faut laajaat ko lim wax. yaru mooy li njëkk ci moom. yaru mooy li njëkk ci moom. te loolu mooy jébbalul yàlla. dara attanuma dara. yàlla mënuma dara ma dara mënuma dara attanuma dara. yow rek yow rek yaa mën yaa attan. yow yàlla yow rek yaa mën te yaa attanit. bon bon. salaati wa nusuki wa mahyaaya wa mamaati lillahi rabbil aalamiin laa shariika lahu wa bidaalika umirtu wa ana awwalul muslimiin jébal rek bon su boobaa yow jébalu rek ngay def. boo jébbaloo nag ki nga jébbalu mat na ndax li nga bëgg yëpp ndax li nga bëgg yëpp ak li nga bëggut yëpp ak li nga bëggut yëpp tam lay yëkkati tam lay yëkkati tam lay yëkkati di la dolli yàlla xam na ko di la ko defal yàlla xam na ko di la ko defal yàlla may moo tax kii yàlla may na ko lu nekk ci xoli nit ñi yàlla may na ko lu nekk ci nangul nit ñi ndax yàlla moo wax jibril ndax yàlla moo wax jibril ne ko nangul waxal waa asamaan yëpp waxal waa asamaan yëpp ne leen man bëgg naa diw ne leen man bëgg naa diw waxal waa asamaan yëpp ñu bëgg ko waxal wa asamaan yëpp ñu bëgg ko waa yëpp bëgg ko waa yëpp bëgg ko waxal waa suuf waxal wa suuf ne bëgg naa diw ne leen bëgg naa diw bëgg leen ko bëgg leen ko ñëpp ko bu ko defee waa suuf yëpp bëgg ko ànd nga ak moom àndoo ak moom ànd nga moom àndoog moom waaye waxtu woo ko gisee rek di nga ci sa xol ne kii ku ñu war a bëgg la kon jaam bu yàlla teral a ngi nii teraangaam fii ci àddina par rapport am ak teraangaam ëllëg ca daanaka amut yàlla rek la yàlla moomu la nekkatoon ci zahir yàlla moomu lay nekkal ci baatin te yàlla mooy yàlla rek yal na ko yàlla yëkkatil ay maqaamam yaa rabbi yal na ko yàlla kaweel yaa rabbi yal na ko yàlla boole ca buuri bés booba yal na ko yàlla boole ci maykati bés booba yal na ko yàlla huutu gannaawam ci njabootam yaa rabbi ci moom. moom itamit yal nañu yàlla wuutu ci moom. cheikh wax na ne def ñoo iiroon. cheikh wax na ne daf ñoo iiroon. iir googu. iir googu. nit ñëw na ci moom. yonent nit ñëw na ci moom bés. sallallahu alayhi wa sallam. ne ko sama yaay deena. ne ko sama yaay deena. mu ne ko ki yàlla doon yërëmee deena. mu ne ko ki yàlla doon yërëmee deena. bon yow xam ne. itam. taxawal taxawaay boo xam ne danañ la yërëmee ñeneen danañ la yërëmee ñeneen yéen tamit yéen tamit di ay rakkam ak njabootam ak ñu ko daan jàppale ñëpp ak ko daan jàppale ñëpp dara soppeekuwut dara soppeekuwut ku àndoon ak ñun rek moom lañ moom lañ ñàkk ku àndoon ak ñun rek moom lañ ñàkk ko fi yàlla ko fi loolu mu nekkoon yëpp mu nekkoon yëpp loolu mu nekkoon yëpp noona mu nekkoon rek na mu nekkee woon rek lay nekkee. taxaw dëgër. nañ taxaw dëgër. ñeme. ñeme. ndax borom fit la woon de. ndax moom mii day borom fit la woon. xam ngeen ne taxawaay bi mu taxawoon borom fit rek a ko mën a maye. rawatina fam ko taxawee nag. rawatina nag fam ko taxawee woon. yal na yàlla dëgëral leen yaara bi. yàlla may leen xam-xam. yal na yàlla may leen xam-xam. ci seen xol cofeel yal na yàlla def ci seen xol cofeel ngeen bëgg seen i seen i wajur ngeen bëgg seen i wayjur ngeen bëgg seen i mbokk ngeen bëgg seen i mbokk ngeen bëgg dëkkandoor ngeen bëgg seen dëkkandoor bu jiital seen bakkan ci dara bu leen jiital seen bakkan ci dara jiital leen moom li mu jiitaloon rek jiital leen moom li mu jiitaloon rek yàlla rek la jiital yàlla rek jiital yàlla ko indi ci baay yàlla ko indi ci baay indi ko ci Cheikh Ahmad Tidiane radiyallahu anhu indi ko ci mboolem xeeti mbaax yo xam ne nekkoon na ci indi ko ci mboolem xeeti mbaax yoo xam ne nekkoon na ci jaarale ko nag fam ko war a jaarale jaarale ko nag fam ko war a jaarale yal na ko yàlla nangul bijaay rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam allahumma salli ala sayyidina muhammad yéen ñii ci kanam jóg leen ci kanam yéen ñooñu ci kanam jóg ci kanam defar leen sàpp yi te ngeen jublu xibla ay tëral tëral ko tëral ko rek ku mën ju léegi nga di ko wax ci gannaaw kàmbar gu nekk ku ko mënoon ngay wax allahuma ixfir lahu warhamu dañ fas yéen nañ jullee gi fardu kifaaya la allahu akbar allahu akbar allahu akbar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 ñu génn te ngeen téye joxe loxo yi